Ndeysaan oh Toubacouta daan na ko daan na Doudou Sané jël bu rëy di ko wër ndomba forcé ko daan ko jël bu amul benn werante <laughs> Franc Ndeysaan du yomb moom ak général Malika du yomb Ndeysaan Franc général Malika. ñaari xale yaa ngi noonu France général Malika <laughs> ay lamb lamb garaaw tey surprise bu am na Toubacouta waxoon naa la ko dañoo daje ñoom ñaar Doudou Sané génne ko par point tey mu jël décision bëreeg moom bëreeg moom bëre bu rëy daan ko jël bu amul benn werante ndaysaan gis nga xale yaa ngi noonu ñu ànd ak Doudou Sané mer nañ ndaysaan mer nañ waaye làmb ngi noonu du sa jur lay neex démb moo jël tay moo ñàkk démb daa daan général tay moom moo ñàkk làmba ngi noonu ndaysaan Franc ak général Malika du yomb combat bi da leen jaral ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar jaral jàppante nañ waaye dara xewagul ndeysaan ñi ànd ak Franc ngi woote di woo sëriñ bi naan ko général Malika la ñu am combat bi yàgg na defal ñaan sëriñ ba lam di dee léegi dañ koy wax moo lay wan ne mbër lu muy ne ci digg géew bi du du du jóge ci sëriñ Toubacouta mii tey décidé na de xaw dina jëlam déet waaye tey décidé na de boo xoolee kii ànd ak Toubacouta di wuy téléphone day wuy téléphone sax ak mbégte xol bi sedd na lool waaye yëkkatil sa tubéy bi nag yëkkatil ci la bokk daa war a jóg ndeysaan temps bi jeex na arbitre attel waaw waaw kaay noppalu du yomb Zia lu wax waxu ko de noonu taxaw ci digg géew bi ndeysaan xoolal lii lee na kaay ma wax la kii daa woo sëriñam kee woo sëriñ bi xoolal kii di dugg ci Franc da koy sëriñ bi wax waaw waaw da koy wax ñoom ñaar ku ci ne woo la sëriñam <laughs> laa ilaaha illallah sëriñ bu ko ci sa mbër jël tay nga dal ci di benn guddi deux cent mille benn guddi quatre cent mille benn guddi cent mille làmb rek ko mën mbër bëre benn tàkkusaan ñu tegal la trois millions nga daan ñibbi ndeysaan saraxa nañ tàngal jox nañ ko waxkat yi loolay ay waxkat ngeen sarax naa leen tàngal ndax ma daan <laughs> ay lamba garaaw ndeysaan arbitre bi sifflé na général Malika ak Franc ñoom ñaar gi leetoo ba tey dara xewagul <laughs> ndeysaan lamba ngoog dara xewagul ñoom ñaar gi leewtoo daw na jëli ko mbaadu da koy daan oh daan na ko daan na ko Franc daan na ko